صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء ما غفص والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokki taalibe yi mbokki ànd bi mbokki daara ji yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñu siyaar mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp dañu bëgg dañu seetaan ñu ngi fas yéene daal ci bis bi nga xamante ni mooy bisu màggal Tuubaa bi nga xam moo 18 safar ñun mbokki taalibe yi nga xamante ni ñooy ëxlu waa café fii ci Touba Argentine waaw ñu ngi fas yéene commencé liggéey bi nag di wéy ak moom ba suba waaw nga xamante ni mbokk taal bi daal day ànd ak ñun tey ci guddi gi fas yéene segg café gi mu fanaan nga xamante ni bu ñu xëyee jëm koo tàngal jëm koo jox mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom nañu bokkal liggéey bi fii ci Touba Argentine waaw liggéey bi ni muy wéyee moom saa su nekk rek sëriñ bi dañuy teg loxo ndax daanaka boo xool moom mbir mi moom noonu rek lay demee maanaam dañuy fanaanee segg bu xëyee nekk ci liggéey bi di gungeeg mbokk taalibe yi nga xamante ni moom chaque jour rek chaque chaque waxtu rek kafe gaa ngi dem chaque waxtu kafe gaa ngi dem ba keroog ñuy jot ndigal li nga xam mooy yeewee ko loolu laa dama koy jàppe sin góor a waaw dajam murit ak café gi waxtu bu nekk dañ koy soxla kon daal pare ngeen ba incha allah fii ba nuy terminé suba ngeen koy servi mbokk taalibe yi waaw incha allah pare nañ koy moom chaque heure rek chaque waxtu rek saa yu ñu soxlaa café gi café gi dana génn waaw ñu ngi koy fas yéene commencé nii nag jëm ak moom suba ci waxtu bi nga xamante ni ci la gi yam waaw lépp di ko sant sëñ Tuubaa bi nga xamante ni moo ñu boole moom boole ñu yilif nga xamante ni bu dul woon moom daal moom leneen lay doon ëllëg waaye ndokk man amee suñ tubaab bi nga xamante ni moom mbokk taalib yi nangu lool nag boole ci lool kenn ku nga xamante kenn ku nekk ci ñun rek bis bu bu yegsee da ngay jàpp ni yow yaa bis bi maam amatun ak bëgg waaw loolu moom ñu ngi koy seedeel ku ne ak bëgg sëriñ bi ñun nag lii la ñu sëriñ bi nattoo ñun mbokk taalib yi nga xamante ni ñun ñoo yor wàllu café gi nga xamante ni moom lay defar waaw defar ko ba nga xamante ni maam dana dana jéggi doyo lool ñu ko jox taalibe yi nag ak mbokk taalibe yi ak képp koo xamante ni am nga ci yéene rek tawféexe na lool barke maam Seera Fall wax dëgg yàlla liggéey bi mbokk taalibe yi ban xëyee ba léegi nii tooguñu wax dëgg yàlla kon ñu ñaanal leen sëriñ bi yokk leen bu baax rek Sëriñ Tuubaa defal leen tawféex ba lépp luñ fi wut si rek sëriñ bi yombalal leen ko jàppandil leen ko ñu ngi leen di siyaar bu baax te defe naa jamono bi yéen ngi ci seen dernier réglage ngir pare suba ak jàmm parce mhm. que dundal la xasaayati ku tedd gi ci bés nga xam ni it bokk na ci lépp important man nga ñu wax fan ngeen tolloo ngeen bëgg a def suba incha allah waaw incha allah baax di ziar waa Touba Argentine TV comme noonu ko waxee rek fi mu nekk ni moom ñu ngi ci li ji li ñuy wax dernier réglage yi ndax bi ñu xëyee ba léegi lépp loo xamante ni euh, barab bi yittewoon na ko mu jëm ci wàllu matériel ci sonorisation pëjëm mag wàllu décor yeeg nataaliku tedd keeg xasité yeeg lépp mu ngi fi xam ni <coughs> fi mu ne ñu ngi ci installation bi bu ñu xëyee dañuy xëy suba ak jàmm rek ci 9h ci suba rek ci la liggéey bi di tàmbali mboolem kuréel yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ànd jàngkatu rajaskat yeeg euh, sikrullahi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waxtaankat yi incha allahu rabbi bi lay présenté tudd na la ne yaay yore programme bi sax fekk na moom yow la mën nga ñu ci tënkal tuuti nag lay déroulé suba ak jàmm allah. waaw comme euh, noonu nga ko laaj rek programme bi tënk nañ ko ba publier ko képp koo xamante ni jàngkatu rajaskat nga wala jàng waxtaankat wala kuréel kuréel gu ci dëkk bi. Euh, jël nañ pàcc yi nga xamante jël nañ euh, limu waxtu yi nga xamante ni moom la moom moo am ci bis bi ñu génn ci waxtuy julli yi ak waxtuy xéewli yi li ci des lépp ñu seddale ko li nga xam moom mooy jàngkat kuréel yi nga xam ne buñ xëyee rek ci suba gi kuréel dañuy tàmbali am na ñaari kuréel yu war a ubbi buñ paree rajaskat moo ci topp buñ paree kuréelkat toogaat rajaskat toppaat ci xam naa dañoo yorul kayit wi nii waaye kon dañ la koy résumé de grosso euh, modo ba nga xamante ni ni mu tàmbalee euh, article un ba jeex noonu lañ la koy waxee waaye comme noonu ma la ko waxee daal noonu lay demee maam dañuy boole njàngum rajas ak njàngum mawlud ba mbooleem kuréel yi nga xam ne moom moo nekk ci biir euh, province Buenos Aires incha allahu rabbi waaw incha allah rabbi waaw programme muy jël heure bi ñu leen daan may euh, loolu it yéen ngi ko ci invité ba fas yéene du ci am. waaw incha allah rabbi xam naa ni moom euh, bu bu bu ñu yàlla defalee feex ñu amee ko ni ñu ko bëggee xam naa ni waxtu ñu jàpp tàmbali ak waxtu yi nga xam ne lañu la ñu war a delloo barab bi nga xam ne fi la ñuy màggalee incha allah rabbi dana yéwén ndax. boo xoolee sax programme bi fexe nañ ba tënk ko noo xamante ni moom mooy njëkk jeex sax par rapport ak waxtu yu màggal gi war a jeex incha allahu rabbi incha allah.